am mbégte ànd ak yéen ci télévision Futur Média di leen dalal ak jàmm ci diwaan bu sell wi di Touba Mbacké euh, équipe TFM ñu ngi fi fan yi yëpp di leen dégtal bépp xibaar bu ñeel euh, màggal gi euh, bésub Serigne Touba bi tey jile soir d'info ñu koy defandee fii di dalal tey ji nag commandant Ibrahima Ndiaye moom la ñu dénk wàllum communication ak relation publique ci gendarmerie nationale ñu nar am ak moom waxtaanu yaa commandant ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm soxna Naata maa ngi lay fay euh, di profité di nuyu waa télé bi yëpp di nuyu téléspectateurs yi si au commandant de la gendarmerie nationale. Ah, d'accord alors commandant euh, laaj bu njëkk bi ñuy dooree euh, tey jile mooy wàllum dispositif bi nga xamante ni gendarmerie nationale teg na ko fii ci Touba muy laata bës bi ak xaj na après màggal bi ndax mën nga ci dellu si waat tuuti. waaw dispositif bi nga xamante moom la gendarmerie nationale teg comme ni koy Euh, gendarmerie dafay accompagner pèlerins yi nga xamante ni ñoom ñooy ñëw fii si Touba euh, mais accompagnement boobu dañ koy gën a gis ci tali bi tali yi nga xamante ni xoole ni ñu di jaar pour egg si fii si Touba boo xoolee euh, li ko dalee autoroute de l'avenir jaar autoroute Ila Touba wala route nationale yi nga xamante ni mooy nationale numéro 1 route nationale numéro 2 3 ba 4 fépp foo nga xamante ni fidèles yi dañ fay jaar pour ñëw fii si Touba gendarmerie li ko yitteem mooy fexe ba xeex lépp luy insécurité routière xeex insécurité routière nag dafay laal lépp loo nga xamante ni dafa war a mën a indi accident loolu moo tax ñu nekk si si si tali alors boo xoolee dispositif bi ñu teg en place jël na lu mat euh, ñetti junni nit yoo nga xamante ni ñetti téeméer moo ko manqué lu tolloog euh, pratiquement 1710 personnes yoo nga xamante ni Euh, teg nañ leen ci kaw tali bi jël en même temps moyen yu bare bare bari bu tolloon téeméeri oto ak fukk ak juróom mhm. dugal leen ci dispositif bi mobiliser lu tolloog euh, juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay motocyclistes yoo nga xamante ni seen rôle mooy di patrouiller le long des axes mhm. di dimbali euh, fidèles yi pour ñu mën a egsi fii ci Touba mhm. bi loolu weesoo. kon c'est important de dire que gendarmerie xaj na euh, amul sax xaj na nit ñi dañ koy faral di jàpp ni dafay ñëw fii rek pour répression maanaam di jàpp nit ñi ak yooyu dañuy taxawu nit ñi c'est surtout ça. taxaw leen ak seen kaaraange. xam nga répression. Mhm. ci liggéeyu gendarmerie nationale. Mhm. mooy acte bi mujj. Mhm. boo xoolee lépp lu gendarmerie war a def dafay commencer ci dimbali doomu aadama. taxawu leen di leen taxaw di leen apporter un secours. di leen euh, aider bu ñu amee panne par exemple ci kaw tali bi di leen jox ay renseignements di leen euh, tegtal di leen jàngal balaa ñuy egsi ci mbirum répression donc répression dafa nekk loo nga xamante ni mooy acte bi mujj bi nga xamante ni moom la gendarme bi di ñëw di jëflante ak euh, ak ak ak population bi donc c'est un si boo nga xamante ni li ko accompagner aussi mooy ay drone yoo nga xamante ni lu am solo mooy jumtukaay yooyu di nekk ci asamaan si di filmer asamaan si nga xamante ni yi ñu indi ren am nañu portée bu 8 kilomètres yoo nga xamante ni fi ñu nekk mën nañu ko nekk di gis fan moo am congestion fan moo am ay embouteillage si kaw tali bi ak yan matuwaay lañ ko war a jël pour mën a corriger yu mel hmm. loolu lu bees la wala waaw daan na ñëw mais ren dañ koy yokk da ngeen ko dañ koy yokk euh, te boo xoolee li nga xamante ni moom la ñuy def biir Touba ak si axe yi nga xamante ni moom moo war Touba mooy route nationale yi wala ak autoroute bi beneen légion de gendarmerie boo jël mu ñu nekk Saint-Louis ñu nekk nekk à ak euh, Tambacounda liggéey bi nga xamante ni moom la gendarmerie di def fii si Touba ak li ko wër ñooñu moom la ñuy def foofu ñu nekk pour dimbali doomu aadama yi mën a ñëw Touba màggal si si jàmm mhm. sans accident yu bari delluwaat seen kër jàmm d' accord euh, commandant Ndiaye balaa ñoo dem ci yeneen fànn dañuy def ci wàllum sécurité routière bi ba léegi ndax nekk na lu euh, yomb jamono ji Touba ku euh, ku xool xam ne ci wàllum oto dafay bëri trafic bi am na leneen tamit muy voiture hippomobile yi maanaam fas yeeg yooyu nga xamante ne dañuy nekk ci dëkk bi loolu yenn saa yi ndax du indi ay gàllankoor xañ na ci liggéey bi nga xamante ne moom ngeen di def ndax ñoom ñëw fi gën a bëri sax daanaka booy xool waaw xam nga Touba moom boo ko waxee affluence bi kenn ñëpp xam nañ ni Sénégal yëpp dañu am ay yitte yoo nga xamante ni il faut que ñu ñëw si màggal gi. pour taxawu seen bopp taxawu seen sëriñ ñëw wut si ay ñaan donc affluence bi c'est normal. boo xoolee tey jii mën naa wax ni atteindre nañ le pic parce que boo xoolee tal yi pratiquement ñu ngi tas ak ay oto mais taxawaay bi ñu si mën a am mooy def ba nga xamante ni accident yi wàññeeku bu baax abaax baax a baax a baax mhm. yi wàññeeku. def suñu kéemtalaay kattan ba nga xamante ni lépp luy facteur bu mën a indi accident ñu wàññi euh, boo xoolee charrette yooyu lay wax. Mhm. pratiquement accès yu nekk muy autoroute yi ak route nationale yi mën nañu wax ni bariwu fa trop trop boo xoolee yooyu si biir Touba la ñuy gën di def ay transport de personnes effectivement léegi nag yeneen euh, vecteurs yi mooy comme moto yeeg yooyu. ak euh, lépp luy mel ni surnombre. Mhm. ñu ngi si am taxawaay bu am solo. surcharge yi maanaam daal surnombre de mhm. passagers yi ñu ngi si am taxawaay bu am solo. te euh, démb rek ñu ngi am benn élément boo nga xamante ni chauffeur bu ñu gis ci kaw tali bi mais taxawaayam nekkul taxawaayam bu rafet parce que da doon def ay zigzag ci kaw tali bi mais dañ ko immobiliser hmm. ñu ko noppalul mu tëdd nelaw ba yow ñu soog ko tegaat ci kaw tali bi mu dem. kon kooku da ngeen koo jàppale taxawu ko jàppale tamit ñu nekkoon ci biir oto bi. dañ koy jàppale jàppale ñi nga xamante ni moom la transporté pour wàññi risque d'accident. d'accord donc ni dañ koy continuer di ko ñaax. Hmm. képp kuy usager nekk si kaw tali bi di la wax ni la euh, dawal dafa métti mhm. te boo sonnee da war a toog nga tëdd noppalu booy yeewoo nga jëlaat sa volant tranquillement mhm. parce que yow bu weesoo sa jëmmi bokk dafa am ay doomu aadama yooyu yàpp euh, te ñooñu dañu am ay njaboot walla ñu nekk ay kilifa yoo nga xamante ni dafay baax ñu aar leen aar suñu njaboot ci kaw tamit. d'accord alors commandant ñu dem ci beneen ponk muy wàllum bilan bi euh, du ñàkk ba ngeen tàmbalee ba léegi euh, seen liggéey am na xaj na yenn euh, nit ñoo xamante ni ñoom ñooy def naka su dul noonu ndax ñenn ñi bu ñu ñëwee di màggal si am na ñoo xamante ni leneen moom moo leen fii indi muy ñi ngeen teg loxo ak ci li nga wax nii léegi tamit ci wàllum sécurité routière bi tamit bilan bi maanaam. waaw wàllu bilan bi tey li ma si mën a wax mooy fi ñu toll nii tey. Mmh. suñu ñaareelu Euh, ñu ngi toll si fukki accident fukki accident yoo nga xamante ni euh, ñett yi accident matériel alors bu ñu ko xoolee par rapport ak année dernière daaw bi ñuy toll si waxtu bi ñu ngi tolloon ci fukki accident ak ñaar bilan yi nag ñu ci ñëwaat parce que boo xoolee ren ñu ngi toll ci à peu près euh, lu tolloog trente blessés te daaw vingt la amoon waaye ñi boo xoolee daaw juróom-benn lañu woon ren ñu ngi toll si ñett ñu ngi profité di jaale waale seen njaboot. ñi faatu ci euh, accident ñi faatu si accident bi am na si ñett nekk nii di ko naqarlu di jaal seen njaboot di ñaan mu yam fii. di wax ni daal xeet bi xeexu ñëpp la. même usagers yi nga xamante ni dañ leen di yóbbu. Mhm. bu ñu gisee chauffeur bi def naka sulu noonu war nañu mën a wax ak moom lu taxaw noppalu ba àndaat xelam mu soog a jël tali bi mm, ci liggéey boobu noonu ngeen di def da ngeen ci ànd ak yeneen service yoo xamante ni ñoom lañ déployé fii ah, lu ci mel ni police nationale euh, brigade sapeur pompier ak ñeneen ak yeneen seen liggéey ak ñooñu naka lay demee ndax gis nañ ni euh, ñoom ñëpp booy xool ci dëkk bi ñoom ñoo fi nekk seen liggéey ak ñoom collaboration bi lëkkaloo bi naka lay demee. waaw collaboration bu am solo. Mm. Euh, su ma commencé si Euh, balaa ñuy commencé magal bi yàgg na lool euh, lu mat weer ñu ngi ànd ak ñoom di def ay opération combinée li ñuy wax opération ne mooy da ngay gis ñu boolee force de police mhm. ak force de gendarmerie boole leen ñuy def assainissement mooy ñuy xool fépp koo nga xamante ni délinquant war na fa mën a nekk ñu raxas ko ba mu set pour que pèlerin yi yooyu nga xamante ni def nañ ko. Mhm. mën nañ ci wax ni euh, jàpp nañ ci ñu bare bare bari. Mhm. parce que mine de rien avant que ñuy egsi ci màggal bi mu mat 250 loolu benn weer la ci ginnaaw. ci ginnaaw bi diggante euh, weer ci ginnaaw ak bi ñuy egsi ci màggal. te opération yooyu yamul rek ci Touba. dafa nekk opération yoo nga xamante ni euh, gendarmerie ak police ñu ngi lëkkaloo si ay fànn yu bari muy fii si Touba muy Thiès muy Dakar di Mbour ak si yeneen euh, région yëpp mhm. ñu ngi ànd si def liggéey bu rafet a rafet si lu mel noonu mhm. boo xoolee euh, pratiquement bilan bi au-delà des personnes yu ñu arrêté li ñu am si ay oto yoo xamante ni nii immobilisé nañ leen toll nañ si téeméer ak juróom fukk ñaar si mhm. leen Euh, percevoir si également lu tolloog euh, ñaari million ak genn wàll si ay mhm. te mu nekk liggéey boo nga xamante ni dañ ko lëkkaloo ak waa police ak waa beneen bi nga xamante ni moom lay wax mooy waa sapeur pompier mhm. là également c'est pareil boo xoolee lépp lu ñu liggéey si mbirum euh, accident tey jii ñoom lañ si àndal di si liggéey donc bilan yi balaa ñuy laal dara am na yoo xamante ni il faut que sapeur yi ñëw ñu ñoo leen di woo collaborer ak ñoom donc pour l'instant daal on touche du bois mais euh, suñu coordination ak yeneen force de sécurité yi mhm. alhamdulilah ñu ngi koy gérer bu baax a baax d'accord lu ñoo bëgg a yaatal tuuti xaj na muy euh, euh, muy délits yi nga xam ne moom la ñuy jàppee nit ñi yenn saay yenn délits je pense que énuméré wu délits yi sànq waaw délits yi nga xamante ni fii boo fi dikkee pratiquement li ñuy gis mooy les vols à l'arraché mooy yi nga xamante ni ay sàcc la doon ay agression yoo nga xamante ni Euh, nit da lay romb këf sa li nga këf saagam daw wala ñu jàpp la fekk nga yore li ñuy wax si sinébar euh, dañ koy tere euh, ñu fekk leen soit ñu koy jaay wala ñu koy jëfandikoo mhm. ñu teg leen loxo bu dul loolu infraction code de moo ci gën a bari mhm. ñi ngay xamante ni dañuy jéggi yoon digtal yi code de la bi wax mhm. donc ñooñu dañ leen di fexe ba infraction ba ñu nekk ñu teggeeku pour ñu mën leen tegaat ci campagne bi. d'accord infraction yooyu a nga xamante ni moom la ñu moom la ñu constaté. d'accord euh, alors junj nga ko sànq commandant Ndiaye muy euh, lëkkaloo bi ak askan wi parce que ñoom tamit ci lañ bokk euh, seen liggéey naka la leen ci askan wi di jàppale gis nañ tam ne am nañ benn numéro vert boo xamante ni maanaam numéro boo xam ne boo ci wootee doo fay dara ngir bu askan bi xaj na gisee naka sudul noonu ñu mën a ñëw boole wala bu ñu waree kalaame ñu ñëw kalaame ci yéen. waaw euh, askan bi fi ñu leen di xaar dafa bari parce que boo xoolee léegi mbirum sécurité du rek mbirum gendarmerie wala yeneen force yëpp a si war a jàpp. Mhm. fi leen di xaar mooy lépp lu ñu gis loo nga xamante ni nii mën naa soxal wàllum sécurité ñu woote gendarmerie wala unité euh, bi leen gën a jege pour wax ko fa. Mhm. loolu nag gendarmerie dafa joxe ay numéro vert mhm. numéro bi si njëkk mu nga xamante ni boo si wootee doo fay dara. mooy 800. 00 20 20. 800 00 20 20. boobu boo si wootee euh, foo mun ci toll di nga am ko jot wax ko sa soxla ñu saafara beneen numéro bi mooy 300 33 889 31 60 numéro boobu mooy le centre de renseignement des opérations de la gendarmerie nationale boobu aussi boo si wootee li nga jot ay nit nga wax leen li nga xamante ni moo la soxal ñu taxaw si si ni mu gën a répété. Euh, que vraiment du la dikkee dara donc c'est très important foofu la ñuy xaar population mm-hmm. lépp lu ñu gis da nga xamante ni mun naa gàllankoor seen sécurité mm. ma ñoom rek mais sécurité askan buñ ko wootee dinañ am euh, foofu la ñu ko mm. léegi nag si magal bi am na benn disposition bu ñu jël ak moom parce que mm-hmm. chaque fois fu ñuy nekk dañu fay tijji benn centre médical boo xoolee fi poste de commandement wu gendarmerie bi nekk fële si Kawen. am nañ fa benn hôpital boo nga xam ne. c'est ouvert au public. pèlerins yi nga xam ne ñu ñëw am ay jafe-jafe wér-gu-yaram dañ leen di recevoir foofu traité leen gratuitement vraiment y a une équipe médicale assez conséquente bu fa nekk médecin baa ngi fi. Euh, les aides infirmières également ñu ngi foofu te bu ñu dikkee du ñu fay donc euh, loolu gendarmerie nationale daf ko def pour euh, participer si li nga xamante ni ñooy wér gu yaramu doomu aadama yi parce que aussi contexte bi ñu nekk. crise sanitaire bi mbas mi crise sanitaire bi ak hivernage bi nawet bi. voilà fi la ñuy toll actuellement gendarmerie mi ngi si def liggéey bu am solo déjà lii aar personnel bi nga xamante ni moom la liggéey mooy le port du masque ak ay gel yu ñu doon distribuer. mais commandement bi démb bi fi au commandant de la ñëwee le général Moussa Fall dafa dem seeti kilifa yi waxtaan ak ñoom seeti xalif général bi seeti son porte-parole daal di joxe contribution contribution boobu nag laal na ay gel yu mu indaale laal na ay ndox yu mu joxewaale ak ay masques yoo nga xamante ni c'est destiné au grand public donc fii leen li nga xamante ni ñooy ñëw ñoom la ñu jagleel loolu pour wane contribution gendarmerie si xeex boobu nga xamante ni moom lay xeex mm-hmm. ci hôpital boobu nga xamante ni la disposition de tout le monde d' abord pour ñun gendarme yi euh, force de sécurité yi liggéey fii si Touba mais aussi pèlerins yi nga xamante ni mën am ay gàllankooru wér gu yaram mën nañoo dem foofu noonu ñoom euh, dem faju ji c'est important ci loolu laa doon bëgg a egg si muy euh, caserne bi nga xamante ni taxawal nañ ko fi ci atum 2018 te njiitu réew mi ñëwoon ke ci jamono jooju noonu ba muy ñëw dafa ne bugguñoo may kenn muy jël ñàkk kaaraange di ko lawal fii ci réew bu euh, fii ci Touba euh, fii ci Touba ndax diggante 2018 ba fii ñu toll ci 2021 am na benn évolution bu positive ci xeex boobu ñuy xeex ñàkk kaaraange fii ci Touba. ba fi caserne bi euh, ubbee ba léegi. waaw xam nga gendarmerie moom. xeex bi nga xamante ni moom lay def si mbirum kaaraange daanaka. day nekk besoin sécuritaire boo nga xamante ni population bi en fonction des plaintes yi ñuy def ak complaintes yi nga xamante ni moom mooy egg si hiérarchie bi si lay jugé ni fii war naa fee yokk unité ndax unité bi ma fi yokk brigade lay doon wala ab escadron lay doon wala ban type d'unité laa fiy indi commandement bi daf koy apprécier xool dam si war a def mu def ko si donc bi ñu ko fi indee ak léegi gis nañ ni am na tan bu baax a baax a baax boo xoolee présence su gendarmerie da ngay gis brigade yi nekk Mbacké nga ñëw biir Touba. fekk brigade spéciale bu am solo boo nga xamante ni effectif bi moo ëpp effectif brigade normale yi parce que boobu brigade spéciale la nga ñëw biir Touba toujours fekk fi beneen brigade de recherche bu am solo boo nga xamante ni aussi ñoom seen liggéey mooy saytu naka suñu noonu si biir dëkk bi. loolu ñoom pratiquement ñu sol sax tenue te fi benn escadron bu am doole ak ay moyens yu am solo yoo nga xamante ni dañuy mën a jàppale waa dëkk bi si lépp luy kaaraange donc vraiment ñu ngi am évolution si loolu euh, commandement bi ngi koy suivre boo xoolee dispositif bi démb mhm. kilifa gu mag yi ñëw na fi wax naa ko léegi jàpp ko mais bi muy ñëw li ko taxoon na jóg mooy saytu li nga xamante ni moom la ñu teg ndax liggéey bi ni mu ko waxee moom ñu ngi koy defee noonu am déet bi mu dikkee xool na ko apporté na si ses observations joxe si ay recommandations joxe ñu ay instructions yoo nga xamante ni lépp pour gën a aaral doomu aadama yi gën leen a teg si sécurité si euh, tali bi. ci biir dëkk bi euh, gis nañ ni Touba at wu jot dafay gën a màgg askan wi dañuy gën di yaatu euh, sancaan yi itam dañoo bëri euh, te mu nekk ay bërëb yoo xamante ni yenn saa yi dafay ñàkk lu ci mel ni ay éclairage public donc foofu dafay wéet te malfaiteurs yi maanaam defkatu ñaawteef yi dañuy faral di leen sonal ndax dëkk beeg ni muy yaatoo noonu ak besoin boobu noonu yéen di ngeen ci adapté wu tamit ngir mun koo toog. xam nga boo seetloo. Hmm. dafa mel ni chaque année heure bu ñu gendarmerie di egsi rek. dafa mel ni effectif bi ñuy indi day gën a yokk loolu besoin boobu nga wax moom moo koy firndeel. waaye bu màggal bi jeexee ku nekk day dellu fa mu nekkoon wala. dafa am ñu nga xamante nii ah. ñoom fii mooy seen barabu liggéeyukaay. Ah. seen barabu liggéeyukaay dañuy gendarmerie day fexe ba fépp foo nga xamante ni soxla nañ fa kaaraange ñu mën faa teew. Mhm. teewaay bi nag dafa bëri ay façon am na brigade yoo nga xamante ni wala unité yoo nga xamante ni mhm. chaque jour da nga leen di gis. am na ñu sol tenue am na ñoo nga xamante ni soluñu tenue am na yenn béréb yoo nga xamante ni ak soriwaay baak fa ñuy nekk ay patrouille moo fay am jékki-jékki gis ay opération assainissement yu ñu def soit seul wala ñu def ko ak waa police ànd ak ñoom pour yokk kaaraange doomu aadama yi hmm? léegi nag euh, bu màggal bu mel ni amee édition bi bu jotee da ngay gis ni commandement bi ak besoin bi ñuy am ak affluence bi am dafay daal di yokk kaaraange dafay renforcer ñi nga xamante ni ñoo fi war a liggéey donc ni mu leen di renforcer mooy day xool unité yi nga xamante ni ñëpp am nañ njëriñ pour téye tali ba kaaraange am foofu dugg si biir ruq ruqaan yi saytu fépp foo nga xamante ni nit mën nañ faa def naka su dul noonu ñu appuyer leen si loolu bu jeexee nag am na ñoo xamante ni dañuy dellu fa ñu jóge woon mais si ëpp ñu si bari dañuy des fii parce que fii mooy seen barabu liggéeyukaay fi la ñu affecté mooy ñu nekk Mbacké ñu nekk si brigade spéciale bi waa escadron de surveillance et d' intervention bi waa brigade de recherche bi ñooñu ñëpp fii la ñuy basé wu à Touba fii mooy seen lieu d'évolution normal ñi ngeen déployé spécialement pour euh, Touba màggal bi ñoom euh, lendemain bi rek dañuy ñibbi wala dañuy toogaat ay fan wala dañuy accompagner pelerin yi ba lépp jeex boo xoolee euh, dispositif balaa ñu koy yëkkati pratiquement doo ko fi gis pèlerins dina di accompagner dinañ dem ba oto yi jeex mm-hmm. ñëpp nga xamante ni ñëwoon nañ fii pour màggal si delluwaat ba nga xamante ni tali yi gisatoo ko benn affluence gendarmerie soog a yëkkati dispositif am donc boo xoolee pratiquement accompagnement bi bien avant ñuy commencé màggal bi si mhm. la ñuy ñëw bien après ñu jeexal màggal bi si la ñuy ñëw ah, et loolu ça peut prendre combien de temps euh, li ngeen fiy toog boo xoolee depuis bërki démb ñun ñi ngi fi waaw gendarmerie nationale ñoo na depuis bërki démb màggal bi dimanche la boo xoolee pratiquement dañ leen di accompagner euh, altine talaata ba àllarba si la commandement bi di jugé pour xool ndax euh, ñëpp war nañoo yëkkati dispositif bi am déet. Mhm. su jaree ñu toogaat fi continuer encore parce que ay pèlerins ñi ngi fi. et que tali yi toujours ñu ngi koy fréquenter commandement bi day joxe instruction yi pour que dispositif bi des mais en tout cas tant que dispositif mi ngi soxla sécurité. Mhm. gendarmerie nationale day accompagner pèlerins yi. pour que ñu am màggal bu bu dankal ah, te chaque fois bu jeexee da ngeen di def waxtaan toog ak comité ci mel ni comité d'organisation ngir ñoom tamit ñu wax xaj na loo xam ne bëgg nañ ko at bi di ñëw ñu yokk ko wala lu ñu war a wàññi fenn wala. waaw xam nga bilan moom dafa am solo si lépp loo gis. loo lépp lu ñuy def. déjà bu màggal gi di jub si bu desee lu mat weer da ngay gis kilifa gi nga xamante ni moom la au commandement défini muy chef des opérations à l'occurrence le colonel commandant la légion centre-ouest bi nga xamante ni moom mooy jiite Thiès ak Diourbel dafay bokk ci réunion saytu yoo nga xamante ni dañuy xool bilan wu daaw li ci am lépp. li soo xew ñu xool li tirer les enseignements pour préparer li nga xamante ni moom la moom mooy am ci édition foofu la ñuy jëlee décision yi ndax dañoo war a yokk effectif yi ndax dañ leen a war a wàññi wala lan lañ mën a def pour que population bi gën a gis seen bopp si kaaraange bu loolu weesoo tamit en interne d'abord avant que ñu leen di woo en réunion pour xool bilan global bi en interne gendarmerie nationale day def bilan le briefing débriefing bi xool lan moo dox ak lan moo doxul wala nan lañ même bu doxee nan lañ ko war a mun a améliorer ba nga xamante ni su beneen yoonee loolu li nga xamante ni gis nañu gàllankoor la woon dootul am. Hmm. boo xoolee euh, au euh, buñ bi fii ñëw. Euh, saytoom yëpp loolu. moom bu dikkee day xool li nga xamante ni teg nañ ko en place ñu wax ni lii dox na lii mën nañ ko améliorer te nii ngeen loolu mooy rectification yi nga xamante ni moom lay indi mu nekk ay recommandations yu ñëpp di suivre. Euh, pour que pèlerins yi gën a gis ci mbirum sécurité. ci euh, commandant Ibrahima Ndiaye euh, la ñuy dalal moom moo jiite wàllum jokkoo bi ak relation publique ca gendarmerie nationale commandant di la sant di la gërëm bu baax a baax xaj na am na ay kàddu yoo xam ne bëgg nga ko jagleel askan bi ndax sànq ba léegi yaa ngi koy wax seen liggéey yamul képp rek ci jamono ji yéen a ngi liggéey ci wàllum prévention wàllum sensibilisation wàllum assistance ci askan wi dafa am lu bëri loo xamante ni ëmb na ko sax daanaka. waaw euh, kàddu gu mujj gi dafay nekk rek euh, woote bi ñuy woote pèlerin yi ak population bi si d' abord mbirum sécurité routière euh, képp ko nga xamante ni yaa ngi nekk si kaw tali bi ñu lay ñaan nga gën a farlu gën a respecté prescription yi nga xamante ni moom la code de la joxe muy benn fexe ba yow sa bopp nga aar sa bopp boo sonnee nga toog nelaw aar sa bopp aarale yi nga xamante ni moom transport mhm. donc fexe ba accident yi wàññeeku bu baax a baax a baax loolu mooy woote bu njëkk bi. beneen woote bi si topp mooy mbirum pandémie bi nga xamante ne moom la ñu ne. mbas mi ak ak yi ñu ne dañ koo war a takk ku ko dañ laa war a teg daan. donc di leen ñaan euh, di leen wax ni mbas mi ñu ci ba léegi que ku nekk war na mën a jël matuwaay si sa wàllu bopp d'abord pour aar sa bopp ak ñi nga xamante ni ñoom nga nekkal mooy nga takk sa masque foo toll euh, soo mënee raxasu di ko def. lu mu gën a bare wala ngay laal ay gel en tout ba nga xamante ni yow di nga aar sa bopp aar ñi nga xamante ni ñoom nga dandal donc di leen jox benn numéro toujours mooy numéro vert bi nga xamante ni moom laa waxoon léegi mhm. euh, boo si wootee doo fay dara doo fay dara nga wax sa soxla lépp loo nga xamante ni jaaxal na la si wàllum sécurité pour aar su bopp wala aar ñi nga nekkal wala aar askan bi dama manière générale nga woote si muy le numéro 800 00 20 20 800 00 20 20 boo wootee euh, nga wax sa soxla bu soobee yàlla dinañ ci taxaw comme ni mu waree ba nga am 800 0 0. 00 20 20 mi ngi noonu mu di numéro ver bi nga xam ne bu ngeen ci wootee du ngeen fay dara ngir mën a jokkoo ak waa gendarmerie nationale commandant Ibrahima Ndiaye ñu ngi lay sant di la gërëm ci wuyu si bi. ñu ngi lay gërëm euh, merci beaucoup ñu doon dalal kon ci soir d'info euh, commandant Ibrahima Ndiaye ni ñu ko waxee sànq doon waxtaanee ponk yu am solo euh, des leen ak télévision Futur Média ci kanam tuuti rek di ngeen ànd ak soxna Fatou Dieng ci xibaar yi.